ay ca mangoog yëgle kaay ngoog maa ngi ca vox populi ma ne day nañu gaaw ci mbas mi covid 19 la situation s'aggrave mbir maa nga yokku de ma ne mbir maa nga yokku de fanweer ak benn ci bakkan ñoo wadd laa wax ci diggante ñetti fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ma ne day fukki bakkan wadd ba su yàlla sàkk ci altine ba tey la ñu nemmeeku ci mbas mi ci diggante 72 heures ciy lii ay ñu nag wopp ji wopp ji yaa ñu toppee mbora le quotidien yéen moo tax jamono joojee ña nga ca ay pexe stratégie ngir nag jublu ca vaccin ba Macky pic à vide jamono ji njiitu réew mi ci ay interrogation ci yan type ma naka lañ ko waajale loolee moo tax professeur Daouda Ndiaye ci yëglekaay ma jëma jaaj mi ne nag nañ ci tey def ci ndànk ndax ak vaccin lu mu ñëw ñëw ñëw du tere nag lu jëm ci askan bi da falaa budd seenug déggoo seenug accord maanaam le consentement éclairé des populations est indispensable ma ne lee le soleil yéenekaay ne nag moo tax it jamono joojee sensibilisation bi ak préparation bi technique bi jëm ci opération vaccination yi ña ngi koy waajal ndax nag lu jëm ci lii falaa budd ñu xool anam bi nga xam nag noonu la ñuy lalee ñàll ñaax bi gën a mën a dugg di sensibilisation ci askan yëlekaayam nguur bi ne force de défense et de sécurité yi jamono ji ñooy gunge nag liggéey pexe yooyee ñu lal di ay stratégie de vaccination jamono ji Dakar yo ngi ca mbir ma susu aane moo taxit de mbir mi di gën di jéggi dayo moo waral ci yëglekaay bi ñu fësal ne heure de fermeture et d'ouverture des marchés convenus maanaam de tëj marché ak jaayee ña nga ca de ngir nag wàllu mbas mi lawaay gi wàññeeku waxtu yañ koy appal tëj baak tëji ba déggoo nañ ca ñi nga xamante ñoo di bokk moomeel yi njiit ya di maire ak préfet yi su préfet yi ak gouverneur bu Dakar dënk nañu këyit ci lu jëm ci tëjeeg ubbite ak marché yi xeex jàngoroy feebar bi équation la dëgg nag ci wàllum diine ji l' équation religieuse lutte contre la pandémie ci yëglekaay bi ne nag donte ab engagement di soobu gu mat sëkk bu kilifa diine yi jëloon terewul feebar bi mi ngi wone mëninam ak dooleem ana lu ko waral ak it nit ñi ko sàggane jàpp ne feebar bi amul feebar bi am na de ak am sax ak am sax mën a de lu ci mën di am mooy nag feebar bi ba duggee ba tey ba suñu jonn yàlla tey am na ci ay kàddu yoo xam nag yenn saa yi mooy salfaañ perturber dëgg discours religieux bi waaye lu ci mën di am njiitu religieux bi di sëriñ Babacar Sy Mansour la mu wax leer na nañ il faut dire la vérité aux Sénégalais nañu wax dëgg nag Sénégalais yi loolay dëgg nag si loolay dëgg si si Malick jërëjëf mu ne ndax nag sàmmoon sàmmonteeg ndénkaane waa dicteurs yi ndax nag dafa war a wuutu kàddug ndigal ndigal dafay yàgg te du fi jug li nga xamante nag bu fi jugewut daanaka dàq dañ ko de l'évidence yéen kaa jamono boobee moom palais de la république gouvernement ba maa nga cee kër Saly Ngar Lam Tour Bourg Décor Mariam Faye sa Fatick ma ne de communication jamais bonne mësuñoo def communication bu baax ay waa ji du samay kàddu nag l'évidence yéen a kaay ko wax ma ne xam nga lu tax xoolal ma gouvernement bi face à la presse bi annulé nañ ko maanaam seen jàkkaaroo bi nga xamante ni ci ñaareelu ay bés bu nekk nag ñu def ab janloo dañ ko mujj dàqani ndax ne yey jamonoy mbas mi la tey lii seen i waxa de l'observateur journal groupe Futurs Médias ba tey ci njiitu réew mi président Macky Sall de ak lu jëm ci wàllum nag coordination l'action gouvernement boobee ma ne de ci yeneen pexe de ma ne nag ndax du carrière cey lii buñ jóge dal ca beneen buñ jóge dal ca beneen ginnaaw ñàkk premier ministre ma ne de njiitu réew mi jëm nañ nag ci ñu tabb ay délégué ngir nag coordonner action du gouvernement ma ne gouvernement bi ñu koy xaaree bëri si réew mi Dakar Times si ne xoolamali lutte contre l'immigration les fonds investis xoolamali ma ne de ay fonds yoo xamante ni waa immigration bi ñoo ko ci dugal te lii de moo jural nag kaso Boubacar Sèye te moonte de lim ci doon wax lépp amu ci lu toll ne tar fatal ay ne waa union européenne weddi xoolama rapport baa ngi ginnaaw bi ñu ko étudier gëstu ko wala ci bilan mooy nag ci Sénégal fii di wàllum projet ak programme migratoire ci Sénégal 2005 2010 tey nag ñi def gëstu bi di waa fondation Erich Bol bu Sénégal leeral nañ lépp de mu ne yu duun laa la wax lu toll ci ñaar téeméer milliards de francs CFA loolee investir ci wàllum domaine migration ci atum ba 2019 cey lii ay xaalis ba fan la dugg kon maanaam bu ñuy xool accès yi ko dugal mooy surveillance fa wàllum frontières yi favoriser les retours fexe ba xemmeem teefal xale yi ñu dellu soqi ko am lu fa toog koom-koom bu fa nekk ba mën a téye xale ñu dem waaye lii mooy objectif yi nga xamante ni moom la union européenne dëxañoon ci seen programme boobee ak projet anamu furaas daal di xëddan moo jural nag kasu Boubacar Seye ci kàddu yooyu rek ngir laaj mbir mu leer cun bënn fuqut sañ ba réer yax ba ca nekkoon ne mes na menteñ fu mu jaar loolee question bi la Sénégal jox kàddu ne cinéma réew mi nag moo tumu ranke laa la wax ay opposition opposition affi bili ma ne de Guy Marius Sagna ak ñoñom ña nga ca de mire bu Macky Sall kii moom kenn du ko weddi ne moom mi ngi ci terrain bi di opposé wu waaye nag loo ci mën a dégg mooy Ousmane Sonko mii lu mu joteeg doyen des juges lu mu joteeg moom ginnaaw plainte bi nga xamante ni nii ne loon nañ ko wàllu Mamour Diallo ak ñoñom ma ne jamono ji plainte moom yóbboon ci ay miru ñi ngi ak Cheikh Seck ca doyen des juges ca yoon <laughs> laaj ma nu mu def ma ne doyen de juges désavoue encore Ousmane Sonko cey lii cey lii Ousmane Sonko Ousmane Sonko juge juge cey lii